mbokk yi niñ leen ko diggee sànq ci direct gi ñu amaloon fële nele la ca euh, Cambérène ca booru unité 15 ci jiyee ju doy waar ji nga xamante ni moom la askan ba yeewoo mu nakkar lool tiis lool euh, mbooloo gi yëpp daat fa woon riir yi dem xooli ji lan moo xew la fa xew nag ci xibaar ya ñu am mooy que ni ab oto gu ñu fa gis mu daat fee gaare ay fan tey la ñuy soog a yëg ni nakate bi ñu ubbee ci biir am na benn koor gu ci nekkoon ñu daat koy lëmës ci saaku benn waa ju ñu faat muy wuyoo ci turu ndongo géey kan moo ko faat nag mooy xibaar yi nga xamante ni moom leen amat ndax newoon nañ la dinañ ci dikkaat pour beaucoup plus d'éclairage ci sujet bi euh, li nu jot mooy que ni nee nañ ki ka faat euh, teg nan ko loxo ki nu jot ni maanaam le présumé meurtrier euh, de Ndongo Gueye teg nañ ko loxo waaye nag ñenn ñi ñoom jàpp nañ ne sax moom moo ko war a mën a faat ndax nee nañ ñu ko yóbbee ci biir enquête bi moom la muy wax ak li nga xamante ni moom moo am dans la réalité dafa xaw a waaye mel na ni ay réglement de compte la woon seeni biir mooy xibaar gi nga xamante ni bëggoon nañ ci woon dikkaat ak yéen bu dellu siwaatee ci maanaam crime bi danoo gis ni oto bi gaare woon na fa ay fan doon romb ci otom moom moo euh, euh, seetlu nii euh, oto bi xàmmee na ko noonu la taxawee daal di xool faf mu yem ci mbir mi ci lañ alerte mbokk yi ak dëkkandoo ak ñi nga xamante ni xamoon nañ ko ci lañ dikkaatee ci seen bi ngir gën a am ay détails par rapport ak mbir mi. li ñu ci mën a leeralaat mooy que ni bi nu fa nekkee si suba si gis nañ ni takk der yi ñëw nañ fa ndax xam naa ne am na enquête goo xam ne seen loxo la nekk ñoom lañuy ñuy gën a déglu ngir ñu indi maanaam tey jii des éléments scientifiques concernant meurtre bi waaye sapeur pompier it ñëwoon nañ ngir yóbbu corps bi service euh, d'hygiène euh, euh, rawatina maanaam presse bi fa teewoon ngir gën a mën a am xibaar ci mbir mi kon di leen fàttali ni ki faatu mi ngi wuyoo ci turu Ndongo Gueye il était bijoutier ndax ci loolu la doon yëngu amoon na soxna amoon benn doom am na ñuy wax sax ci xibaar yi na actuellement ni soxna si mu am sax dafa nekk en état de grossesse waaye nag fii lañ ci yemagum ngir tënk rek pour xamal ni leen ni présumé meurtrier bi nee nañ teg nañ ko loxo waaye lu ci munti am lu ci gën a leeralaat mi leeral di leen jaajëfal.